ba ci Adama arbitre baa ngay wax ak ñoom li règlement bi bëgg lim nangu ak lim nanguwul ñu dem mën naa ne combat yi bareetul combat bi ñu sufle ni nag diggante Ndiaye doole ak Dorso xam cosaan Ndiaye ma nga nekk écurie yëmbal mbooloo Ndiaye doole moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen bu rouge li day tent bopp bi tent bu rouge doo solo jàkkaar lool ñu ngi dem déplacement latéral gauche ak droite gauche a ngi léegi waaye demul doole Dorso ñaay doole Dorso ñaay doole Dorso ayca Dolfo Cox xas na léegi doxaan nañ ba ñëwaat ci digg géew gi. Njaay doole ba léegi Dolfo Cox demul jël na tànk ya lan mooy am. doon na ko kuuba mbaa kaawa du am. Njaay doole Dolfo. xale xeex na songo percule ba jël na tànk bala lay am rocceeku waat na ba waaye demul njaay doole dorso xale yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre njaay doole ngi dóor dorso di fayu adama dëkkum dóore fayoo ko tas <laughs> aca njaay doole mu ngay jaay nga xam te ne moo adversaire am doole waaye dorso nee na ko doonam ma fi bàyyi jili njaay doole dorso Ndiaye doole door soo doole fu ne daa loxo ci ngemb wala loxo ci gaño ba pare daal di ne ngeen xañ ko bëre bi doole ak door soo mën a tekk ñoom ñaar ku ne déglu sa morom ku ne pexe ngay xalaatal sa morom fàqat na ko waaye ñëwul Ndiaye doole ak door Ndiaye doole Dorso Ndiaye doole Dorso moo jàpp benn loxo ci ngeen ba pare daal di ne ngeen Ndiaye doole ak Dorso Ndiaye doole Dorso Ndiaye doole yëmbal mbooloo Dorso sàkku xam-xam wala sàkku cosaan Ndiaye Doole ak Dorso Ndiaye Doole Dorso ne rim lamb daa mujjee changé te dañoo ne teg lan la woon mbot la woon wala caxabal lu ci mën te am ñor du Ndiaye doole ak Dorso door na ko léegi lu xew Ndiaye doole Dorso ca xabal ba waaye demul dara ci teggi na loxoom Ndiaye doole Dorso ña ngay xeex moom Ndiaye doole ma ngay door lu mu bëgg Ndiaye doole Dorso xale yaa xeex Dorso yaa ngi door mbaali wóor na Ndiaye doole Dorso. ñay doole ak door so ma kaw do am ñay doole door so xale yi bëri nañ xale yi bëri nañu doon ne ku ne am nga sa benn loxo ci sa gëñëb morom ku nekk am nga benn loxo ci ngemb ñu xool Bawol ak Dóor Sóor seen dëkk bi mu nar jaxabal wala dëkkam bi lu nar ba léegi ci géew gi Njaay Doole ak Dóor Sóor Njaay Doole Dóor Sóor ña ngay xeexum kaw ne ngeen bee ko sonal moom dama ko dindi pour mën a accès ci mbër mi geneen loxoom ci biir daal di koy jaarale ca kaw jaay doole dooso jaay doole dooso ja bañ na bañ na lalla jaay doole dooso laay laaxee la laab ca xamaloo bañ daal di koy moom Dorso Ndiaye doole Dorso la ngi nii caxabal ba tegiwaat na ko daal di koy caxabalaat moom laa la man li laa bëgg boo nekkee xale xalaat loo am Ndiaye doole ak Dorso technique mu ngi feeñ xarañte ngi feeñ waaye endurance it la ciy génne fu mu ne nii ne nii lal njaay njaay lalli ko waaye lu njaay lal rek door soo lalli ko <laughs> te bi la combat njaay doole door njaay doole door soo bi yàgg na métti na kooku la maanaam bëgg naa la bu baax. Aïssa Ndiaye doole door soo ba léegi ci digg géew gi combat bi yàgg na waaye métti na ku nekk yaa ngi jàpp sa ngeen kañ ak morom wala ngemb daa sa morom. yaay dooru dóor soo yaay doolu ak dóor soo dóor na ko léegi mu daal siggi ndengeñ bee ko sonal Papi Ndiaye teg ci mbaggam bi moo ko sonal moom dóor soo caxabalaat na ko wala tentation yi bari na Ndiaye doole ak dóor soo Njaay doole ak Dóor soo Aïcha bëtt na ko léegi loolu la bëggoon Njaay doole Dóor soo faqat jaay ngi faqat doole Dóor soo Njaay Njaay Dóor soo jaay doorso jaay ak doorso ñu dem ba léegi jaay doole jaay doole doorso ñu ngi dem ci ginnaaw saaku ya jaay doole ak doorso jaay doole ak doorso jaay doole door so ba léegi faqat na ko laa ilaaha illallah kan appi jaay doole reprise na ko laa ilaaha illallah lu jaay bax door so ngeer na ko lan la ca xabal ba est-ce que lii dañ jaay est-ce que lii jaay doo ci génn door so daan ndeysaan macha allah